war nañu war nañu am ay kilifa yu dem ci fi nit ñi nekk au oh moins dem sol ay botan comme bi Touré mi def reportage wala Mansour Diop muy def ab euh, gëstu ak yooyu non waxuma loolu de dem essayer gane ji ñu nekk ci ndox mi dugg ci ndox mi toog fa demande leen ataaya demande leen boisson demande leen ñu toggal la añ pour yow nga mën a yow xayma ñoom li ñuy dund voilà heure añ bu jotee li ñuy dund ñuy dund heure reer bu jotee waaw surtout guddi heure tëdd bu waree jot mais gis nga alaaj hmm. gars yi dañ dul yegg. duñ yegg. Ah, yegguñu démb ministre intérieur. waa cité douane. Uh-huh. bokkoon na ci côté yi mu waroon dem. Uh-huh. ay booru Nations Unies yooyu. Uh-huh. gars yi ci kaw tali bi lañ lay yemale. doo yegg. ci kaw tali bi lañ lay yemale. doo dugg. président Macky Sall boo waree ñëw fenn. ay service am am peinture. paq-paq yoo xam ne alaaji dañoo amoon ci ab ta ay tali yoo xam ne nit ñi dañ ko doon souffrir ba nga xam ne uh-huh. suñ na Macky sam samedi bii di ñëw bi ci topp lay ñëw ngee xoox uh-huh. wala ci lay ñëw taatagin wala gi ngi neew alaaji diggante boobu danañu ko euh, euh, euh, taf yëngal truwel ko uh-huh. indi fa indi fa latérite bu ñuul defar lépp ba ne nickel <laughs> punkal mi bu wàccee autoroute à ba keroog muy dugg ci résidence bi mu jëm alaaji tali doo lay gis. mu ne mais fii moom vraiment ah. vraiment. Ah. fekk nit ñi souffrir nañu juróom-ñetti atam yëpp. dee nañu. dee nañu. ci toroxtaange la ñuy dund. ci lii lu mu lay annoncé tweet la koy def sa président yow lu mu lay annoncé tweet la koy njëkk a jaarale. <laughs> tweet réseau social la te réseau social lépp fa lay jaarale. mënu ko mënu umpale jafe-jafe askan bi di dund mënta nekk. non mais déggoo li mais xanaa yow déggoo li ma la déggoo déggoo li ma la wax dama ne. Mhm. man kay dama man waxuma ay affaire tweet ak ay réseaux sociaux man dama lay wax ma ne la sur le terrain xam nga sur le papier dafa am ak sur le terrain. Mhm. il nous parle alaaji mhm. de milliers de milliards. mais yow boo ci toogee ak ñoom kenn ci ñoom ngeen def émission da nga ko naan mais yéen lii ngeen di wax nii ci plan Sénégal émergent. lii ngeen di wax nii euh, ci Promoville. lii ngeen di wax nii ci ci ci ci ci seen programme yi bari yi nga xam ne alaaji moo nekk ci biir àll bi. Mhm. mais xanaa lii ngeen di énumérer ci ay projet ak ay milliards. xanaa c'est sur le papier. mooy yéen est-ce que wàcc ngeen sur le terrain. bun joon tey dama koo gis moom secrétaire général ministre d'État si si si euh, soleil. Mhm. mu siq waxtaan ak yaa xam mbay mais ñii dañoo ñoom ni kuy kokkali nit def interview wax la carrément ne la ouvrage lu jëm ci wàllum inondation yi li président def résultat yu notoire yoo xam ni ouvrage yi ñu ci def moom moo tax ba nit ñi dunduñu yenn ci ay jafe-jafe. wax nañu respecté Sénégalais yi de. bàyyi ñoom nee na amoy ndiir na xam nga li ma la wax. Euh, euh, euh, kii yi jafe yi nga xam ne moom la nit ñi di dundu fan. fan la mbënd mi wàññeeku mais est ce que kii yónnee nañ ko vidéo yi nit ñi dund ci ñaari fan yee ñu génn. fan la mbënd mi wàññeeku la mbënd mi wàññeeku. man dama man. fan la mbënd mi wàññeeku damaa yaakaar ne man da moo taxit loo ci gis alaaji ña ca ñemee wàcc ca terrain ba ca ñoom bariwul. xam nga journal bi Les Échos daf la wax ne la Khalifa sàll dafa demoon Cambérène. Mm-hmm. dégg usmaan mm-hmm. Ousmane ko waa waa këram dem Cambérène. Mm-hmm. ñu gis Amadou Hott yëmbal xanaa xanaa xanaa responsable locaux yi di benn benn la ka jay-jay ak bëgg tur ak ak bëgg bëgg xëj na ci élection locale yi nit ñi xam leen mais ñi tax ñi nekk ci biir appareil bi dëgg dëgg dëgg dëgg ah. ñu leen di fay suñu weeru dee di sonn ci ñoom doo leen gi ñu waaj sur le terrain di lan la ñuy wax dëgg dëgg dëgg juróom ñetti atu yàlla ngay wax ci wàllum inondation yi di dig nit ñi nit ñi dee te boo demee et man gis nga man gis nga man bu ma ne man bu ma bokkoon APR. man am na yenn plateau yi du ma fa dem ak yenn jamono yoo xam ne du ma dem au front. du ma dem au front alaaji parce que défendre leen défendable dafa metti da ngay dem toog foofu moo taxit loo ci gis ñu bare bari ci ñoom boo leen invité du ñëw de. Mhm. gars yi dafa am ay contexte yoo xam ne ci la ñuy dem ci plateau télé ak ay contexte yoo xam ne koo woone ko kaay ma invité la mu ne la Samba Kouri Ndiaye ginaare ki nenam mhm. maa ngi nii yoonu aéroport maa ngi voyagé léegi léegi léegi léegi léegi. parce que xam nañ xel ni dañu échoué. c'est dommage. dañu échoué Macky Sall woote nee nañ réunion d'urgence tey ba mu ko waree dafa yàgg keroog ca ndox ma alaaji. wax mhm. Wade ba mu jógee Suisse. nettal naa barki dem mhm, mhm, après liñ ma yónnee vidéo yi. dana cëpp aéroport wutale mbënd ma. Uh-huh. oto yi ci biir ndox mi lañ jaar ak ay millimètres yu bari. xuus ci biir. état continuité la direct news bind na ko tey Ablaye Wade mënul teg benn programme d'éradication bële Macky Sall ñëw faxas ko ne man damay indi ab programme décennal. dégg nga de. Mhm. léegi nag foofu alaaji fekkoon na mu Angleterre war na ay milliards. boobu bu wàdd ba déjà. bu yow nga ñëw indiwaat encore beneen projet boo xam ne day wan naat ay milliards. sa successeur ñëw falu encore ne lépp lu fi Macky def baaxul man il faut ma def loo xam ne dañ naan jam ñaajo man la. déggoo ma de ay lompuloog yooyu yëpp nekkoon projet waa ji dama koy gas suul balaa ëllëg ñu naan yow nekkoo fi loolu mottali mais état mottali la. état continuité la. les hommes passent les institutions demeurent. loolu la tubaab yi wax nest mais yow nga bëgg ñëw yow kut koo kut waa ji lépp lu mu fi defoon di nga ko dindi te waa ji nag li mu fi def yëpp neexul dindi de. laal li péage bi. laal ko rek ci laay xam xel. yow boo fekkee jumaa tege alaaji alaaji mhm. nga ñëw jël un milliard tabax jumaa ci wetam mhm. nga ñëw fekk pont tege nga def pont ca wet ga wala nga daaneel pont ba mhm. tabaxaat pont lépp rek yow nee nga waa ji lépp lu mu fi def daal dama koy dindi def man sama bosu bopp def ba pare def samay couleuru parti ci édifice public yi pour nit ñi xam ne lii man la waa réew mi voilà gars yi di fi wax ay affaire la woon woon ni na. xam nga alaaji. voilà ko ni ñi dund dina dina di. xam nga big man ki wax ci ci journal télé bi ma ni sept cent cinquante mille boo ko joxoon golo sax pour mu daggal la banaana. Hmm. dana daggal banaana ba fi ba fi gaa ko bind ko. <laughs> golo sax boo ko joxoon sept cent cinquante millions mu defal la mu defal la réalisation. <laughs> léegi question bi mooy. Euh, euh, xaalis bi ñu def nañ def nañu ko ci. Hmm. moom. wala politicien moom mënta def xaalis ci suuf xëy na bu doon pont moom daañu def ay pont yu ñuy wane moom mais xaalis ci suuf nag foog nga nekk gar dëgg de. xaalis ci suuf ay milliards ci suuf rek kenn du ko gis bët du ko gis di gas rek di dugal ay milliards loolu boo nekkul gar mi dëgg dëgg dëgg dëgg fu junniy dem téeméer nga fay def. Hmm. beneen bi ci des ma ni leen 750 milliards yi mën naa nekk de mais bul fàtte ni Sénégal la lépp séminaire la ba ñuy waajal ba ñuy woo experts yi ba ñuy xalaat ak xalaat ak xalaat séminaire. affaire bi fi mu fi ñu toll nii lu ñu këtt lu ñu jonn moo koy faj. mais yow plan Sénégal émergent bi nga gis alaaji. plan émergent bii nga gis. plan Sénégal émergent. ay dizaine de milliards. la Macky Sall fay pour ñu defaral ko ko déggoo ma de dañuy dem fay pour confirmer li ngay wax nii. gis nga sept cent cinquante milliards yi ñuy wax. boo demee cent yëpp ci ay mbirum kayit kii séminaire ki caaxaan la dem. déggoo ma de. mën a dégg. waajtaay forum. rencontre rencontre sommaire. xam nga li ma la wax. Mhm. Euh, ñu fa yéene koo clôturer ak benn conseil interministériel wala présidentiel. Mhm. lu yëpp oto lumbu def fa juróom-ñaari fan le plan décennal ñeeng ñeeng dugg na fi génn fi. Mhm. mbiru caaxaan mbiru fo. caxat caxatee alal wi wutal ko budget à part. baax na. mille milliards yi ñu doon wax nii nii nii nii nii nii nii mille milliards mille milliards gars yi naan fan lañ koy jëlee pour wax la ne la alaaji gis nga gis nga ñii nguur gi mhm. ñii ñii non seulement yàpp nañu population bi mais eh, lu ñu bëgg ñoom dañ ko état nee naa la lu mu bëgg am ko mhm. da naan ci juróom-ñaari fan dama bëgg mill milliards mhm. nga am mille milliards dégg nga ma de nga signé ay accord depuis deux mille quatorze ak ay enseignants mu bëri nag ay volet ay volet volet yoo xam ne mooy bloqué mbir mi du laal dii milliards nga ne jàngalekat yi di ngeen dugg ci classe yi par force wa ilaa ma tàggat ñeneen ñu remplacer leen yéen greffier yi di ngeen dem wala ma jël maton yi forme leen ñu dem seen place parce que xaalis amul mais boo bëggee am xaalis tey tey tey tey tey ma am junni milliards budget boo xam ne yéen koy jël ne ngeen da ngeen di xeex ak wàllum covid lii yëg lii yëg lii yëg lii ba léegi nii sénégalais kenn mënu wax ne la xaalisu Covid bi dëggantaan njaay rubrique par rubrique général bi de nee nañ ma nga ca ma ngay demander ay compte gauche droite dugg na fi gën a séddaleem ceeb ba moo njëkk indi ay problème ca mbiru marché ñu ne séddale bi rek gën a sori quatre-vingt-dix waru koo pees passé di ñetti weer ba léegi am na ñu jotagul seenu ceeb. déet ok ok ne ne ne li dem ci. li dem ci autoroute à péage bi. dem ba dem ba dem ba dem ba dem ba Ballaloo dem ba Touba parce que lu toll noonu bu ñu ko defoon ci ci ci inondation yi dëkk yëpp duñ duñ tàqale ko inondation Dakar Touba Kaolack Saint-Louis yëpp. jël mille milliards def ko ci TER goo xam ni quatre-vingt-dix-huit pour cent population ginnaaw raay ak banlieue ba yëpp TER gaa leen ko jural tey tey dégg nga lii la quotidien bi na alaaj hmm. nee na le pôle urbain. pôle urbain bii nga hmm. gis nii. Hmm. jam ñaajo moo moo moo wàccee Tëngéej xam nga da ngeen moom naka jekk sax danaan danaan danaan mhm. moom mhm. moom inondation mhm. ak canal yu ubbeekoo ndox maar di taali moo Kaolack moom dañoo bokk nday xëj na te dem bay bokk bàyyi te bokkuñ bàyyi dégg nga loolu euh, euh, yi tóoj ñëw jekkali leen ñu yegg teer teer bi dawagul teer bi dawagul jam ñaajoo nga ne taa taa ba maar di taali nga taxaw ne tëkk tëkkal dinaa wan nit ñi ne man defar naa fi benn cité yi ñoo ñëw waaw fi nekk nii fi ñu toll nii Sénégal nii fi nekk nii lan mooy nécessité terre wateraay bi départ Dakar yam jëm ñaajo ak fi réew mi toll ci coono ci souffrance bu ñu demee ba jëm ñaajo dañuy wàcc jëlaat kalandoo pour wutali aéroport wala kon lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy importance su terre ak li ci demagum yëpp ci ah, xaalis xanaa déggoo li Macky wax nee na léeg-léeg nga daal di gaare sa oto jël otoraay bi dem ak moom euh, comme le fond les tubaab là. promenade euh, yow tubaab yi nga yow yow yow Paris alaaji boo fa demee. Paris. X5 bokk na ci 4 x yi gën a yu gën a ndaw. yu gën a ndaw yu gën a ndaw. waaw ah, bien sûr duñ koy jënd. ñoom ay deux cent cinq ak français yi oto yu ndaw xam la mm-hmm. ñu ci baree bari problème mu espace la ñu. fu ñu gaare. Mm-hmm. ñoom sax nga naan ñun nañu jël ñoom euh, yi daw ci gaare. dañuy daw ay costume la ñuy sol di daw. di daw train bi bërki bërki autorail yi lañ lañ lañ bëgg nit ñi wax ñu lan mooy njariñ li. waaw askan wi Sénégal la ñun amuñu temps boobu. askan bu nekk yaa ngi tal askan askan wu ndóol doo ko gëmloo promenade da nga koy gëmloo dóor waa. waaye da ngaa tal promenade yow. déedéet te tool nii. Ila Touba ji ñu ne alaaji quatre cent quatre cent et quelque. moo ci dem ñeenti téeméer yu tëgës lëf ci ay milliards. dégg nga mais ñu ne TER bi. mais ñaari yoon Ila Touba. ñaari yoon Ila Touba. ak genn wàll moom moo ci dem mille milliards. mais bu doon suñu investissement wu bopp. catu Cambérène gii mënoon fexe ba jekkali ko pour nit ñi gars yi jaar fii dem. alaaji alaaji alaaji Padoua ak Touglu. Padoua ak Touglu donc le Eiffage di occupé. nañu la defal chiffre d'affaires quotidien par jour ñaata lay génnee. 2012 bi ñu soog a taal seen TV def naa fa benn émission chauffeur bi booba station yi benn bi nekk Cambérène fii station bi nekk tey station Total bi. foofu moo nekkoon benn station kese bi oto yi doon yem. par jour danoon génne 13 millions par jour. station bi bu amul waaw foofu noonu. bu amul événement la wax bu amee événement moom dañuy séntu ay 25. te loolu boobu ki fa nekk directeur de l' exploitation moom laa defaloon entretien jamono jooja 2012 ak léegi. léegi am na ñaata station fi yokkuwaat bii def 1000 francs yokku na ci bii def 400 yokku na ci bu tooglu bii def 600 yokkuwaat na ci. Ah, ak ñaata ñoo fi amaat oto. ñoo fi ñu jënd. ñeeg ñaata ñoo dëkku ñoo bi dafa jaar ñoo toxoo Dakar dem dëkki Kër dëkki ñuy xëyee Mbour di liggéey si Dakar ak Thiès. di liggéey si Dakar chaque jour blocage Cambérène bi alaaji génnewu ma ci tubaab yi. Ah déggoo ma di maa la wax lii man fan laa doon jaar autoroute à péage dong laa doon jaar man bu ma demee ba Pikine ma fëkkanoon dugg biir géej waaye génnee Canada suñu VDN 3 bi yéex na léegi fee laay fii laay jaar chaque jour léegi nag blocage bii bloqué fii tax na ba ñëpp ña ngay jaariwaat encore ci autoroute à péage ba fii bu fii bu xasee ba pont bi ne bërtëtët romb Cambérène gi départ wutali Tivaouane Peulh ñee dinañ bëgg ku ñu jaay mu ko tëj à moins ñu xottiwaat fii defaat ko à péage mais du nekk VDN simple déggoo ma fii lu fi gis bàyyil sa xel ca ginnaaw parce que tronçon bu ndaw bii nga xam ne moo këtt fii ci Cambérène mais lii mënul nekk tayeef mënul nekk ñàkk bu xaalis mënul nekk ni nguur gi daa tële ni mënu ko mënul nekk amul benn raison bu war a mën a tax travaux yi mën ta yegg nit ñee ngi dee nit ñee ngi dee génneew ma ci nasaraan yi laa wax ñooñu ne comme que ñoom ñoom moom suñu réew mi lu leen neex la ñuy def ñoom bu ñu amee jafe-jafe sax dañuy woo seenu njiit waa da waxoon na ko ci problème mu Bolloré ba ñu soumissionné fii Dubai Pod Wood ak ba ca topp gagné leen ñu jël troisième xaw ma ndaare ñoom français ñu gën leen ay proposition fop naar yi ñu jox leen suñu port dañoo dem kalaame yi ca Sarko maa toog ak Wade nii Versailles moo xam ko ne keroog dañu cëpp ca biir palais ba ca France daa nuyu ko rek président bi ne ko xam naa ni moom le dossier kii fas duñ ko fi waxtaanee Wade ne ko ban dossier moom moo moo moo fi nekk boo xam ne nii buñ ko tuddee ñëpp mer mu ne ko le dossier Bolloré mais Wade ne ko mais yow son excellence yéen yéen yéen yéen yéen da ngeen ñoo yàpp yéen ngeen soumissionné li ngeen proposé presque Dubaï it yii di waa Dubaï yi proposé nañ presque ñaaram xaw ma ñettam ngeen bëgg ma jël suma port bi jox leen ko yéen waa groupe Bolloré rentré ñooñu tey ñoom lañ indiwaat jël suñuy suuf toog ci armée française ngeen lan lay def ci suñu réew lu dul nit nit lab wala dugg ci mu teen càng ñu naan woo leen sapeur pompier yu France ak ñi nag suñu armée ni mu xarañee tubaab yi toog fi ni xel di ñu yëddu subaa ngoon gu dégg bëccëg booy wax ak Ouattara mii sax Macron xam yow lan ngay wax ak moom boo leen nii mu leen di woo di leen demander ay explication temps est passé il a convoqué presque tous les chefs d'État euh, africains francophones ñu ñëw pale mu naan def leen di laaj ay explication gone goo xam ne focce koo gutti nen man mii di wax ak yow gars yi benn at la ma magee ah ba ngeen di dugub l'école moom nekk ju doogul waxuma primaire rek